سار وفي سفر هماني على ما هم مع الحبس والسفر ñu ngi leen di fàttali leen ñu ngi koo xamante ne kilifa la waaye Cheikh Béthio Thioune ñu nuyu ko rek mu daal di ak mbokk internet yu lay seetaan si Sénégal 7 ak si Tacko TV Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. a ah, ñooñu lay fay bu xam ak lu ñu xamul te di sant bu baax a baax te di leen sant yéen tam yéen ñi ñëw fii ngir wane jëfam jure ji. laataa ñu ñëw si euh, togg bi ngeen di togg bëggoon naa rek euh, ñu ñëw si li nga xamante rek moom moo di màggalu ren bi. waaw ñoo ngi ciy santaar sëriñ bu baax a baax waaw noo xam loolu mbiru sunu borom la at bu ñëw day dàq bi weesu ndax sëriñ Tuubaa dafa ne sama tay jure dana gàcceel sama démb. te yàlla moo ko fayee bis bii di màggal gi saa yu ñëwee natt ya ko daan dal dañ koy ful muy doon ay njariñ kon yokkute gi moom fépp lañ ko gisee waaw. bi ñu ñëwee fii nga xamante rek donc moom moo di diwaan boo xamante ni euh, ñu si bëri euh, nemmeeku nañ ko lool si wàllu mën a togg di jox jaamu yàlla yi di jox jullit yi nga xamante rek ñoom ñoo jugee fu nekk si àdduna bi ñëw di si barkeelu ma bàyyi la nga ñëw. historique bi nga xamante rek donc euh, Mbanay euh, fu mu dooree ba agsi fii nii ma bàyyi nga nga ñëw si nu mu gën a ne mu dooree de mooy sëñ Béthio sëriñ Saliou wooy sëriñam mu jébbalu ci moom 47 moo fekk ko benn daara boole njabootam togg ay ñam yóbbul ko naaj bu tàng jër mu ne ko ana lu waral lii mu ne ko Mbàkke sant si la képp a waral lii mu ne ko bis ñi ki tey yàlla bég na sëriñ Tuubaa bég na sëñ Béthio ne lépp lu ma def ñooñu bég dootu moo ko bàyyi moo waral mbana yii Serigne Sall ni ko ak cant bernde bernde rendi di di togg ñam yi neex di ko joxe te ci am xàjj seen moo waral lii Serigne Touba amul fenn fu nit gisee fu mu ñaanee fu dul ci màggal gii képp laa wax ne leen ma yàlla bu ñëwatee sëñ Béthio fas yéene ko sant yàlla Serigne Sall ni sa màggal mooy sama màggal moo waral lii et puis bëri na lool macha allah euh, naka ngeen réussir rek chaque année yëpp fi di gën a yokk donte Serigne Béthio Thioune dëddu na di ko ñaanal yàlla fa mu dem gënal ko fa mu jigee dèjà lan nga ma mën a wax ci cin yi nga xamante ni donc chaque année dafay gën a yokk waaw cant la yàlla moo ne ku sant ma yokk la Serigne Sall dafa jëf ji yàlla nangu saa su ne day yokk jëf ji yàllaa ko nangu moo tax saa su ne day yokk beneen bi mooy ñun loolu mooy sunu diine saa yuñ ko defee bu déwénee dañuy jéem bu fekkoon fukk lan def dañuy jéem a def ñaar fukk te loolu yàlla moo ñu jiy fekk si loolu rek ko waral. yokkute bi nga xamante ne am na si diggante bi euh, daaw li ngeen defoon si ay mbana ak ren mën nañoo xam exactement ñaata day mel ni daa doublé man fii maa fi daan togg waa ñu santaan lañu koy wax bërëbub Serigne Saliou daaw ma weesu sant mbana sëñ mu Ngom mi tàllal lii bi mu ñëwee ma ngi ko ci collecteur am ñaari këram yee. mu dem ba xëjatu fa mu génne ko ren jii double na ko ba pare am na 30 sàncaan yu bokkul ak lii. lii li ñu gis rek la nii mais li li ñu gisul ci biti moo ëpp lii waaw ndax lii moo nekk fii ci penc mi. am na yeneen yu nekk ci yenn bërëb boo duggee Touba koñ boo dem am na fa sàncaan moom mii lii mu teg nii tegaat na yeneen 30 sàncaan boo duggee ci dëkk bii lii mu def nii ñu bare nga koy def ci ci ci ci réserve yi teg di togg di joxe ndax ñun loolooy suñu diine loolu lañ sëñ bi jàngal waaw. ban euh, diggante la Serigne Saliou Mbacke amoon ak Cheikh ca Thioune euh, si jaamu yàlla ak si xam-xam. loolu mbiru sunu boroom la du mbiru nit kenn mënu koo xam ndax dafa ni ko li ma def ci yow ku yàlla sunu borom xamu ko. kon ñun mënuñu ko xam loolu sunu boroom la jóge li ñu xam daal mooy bëgg na ko cheikh bi gëm na ko déggal na ko te wóolu ko waaw. macha euh, nekk fu nekk si adduna bi. fépp foo dem Cheikh Cheikh Béthio Thioune am na fa ay taalibe loolu lan moo ko waral. lépp sëriñ saaliwu la ndax Serigne saaliwu moo jël ruu yi taqale ko ak jëmmi Cheikh Béthio ruu yi Serigne Saliou leen moom ku xam ak ku xamul ndax Serigne Touba moo ko waxoon te Serigne Saliou da koo feddali ndax bi mu ñëwee toog rek dafa ne jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Touba daan def daan tey yelloo ma ko ma barkeeloo ko kon ruu moo ko moom moo jël ruu yi jébbal leen Serigne Béthio ñu jëm Serigne Béthio. waaw macha allah tey fi nga taxaw nii lan la lay fàttali. waaw mu ngi may fàttali lu lu lu rëy ndax fii nii miin naa ko lool ndax fii maay jëwriñ bi daa jannatu gi maay jëwriñu waañ yi togg gu ñu fi mos a togg mu dem ci Serigne Saliou sama loxo la jaar président bu fi mos a ñëw ñu togg toggam sama loxo la jaar ñu togg ko yóbbu ko Serigne Saliou daara ji mu am fekk naa ko fa yóbbul ko fo ay togg benn daaraam rek laa mos a dem yóbbul ko toog muy ngéejaan waaye daara ju ma am mooy fukki daara yeeg juróomi nekk xelkom ak ab yi nekk saw yëpp fekk naa ko fa kon miin naa bërëb bi bu baax a baax damaa fi jëkk a togg tam sanca li ñuy wax sancaan waaw tey lan nga yëg sa xol mu toll ni màggal màggalu Touba ak mbana yu bëri yeeg ngeen fas yéene togg jox jaamu yàlla yi lan nga yëg sa xol mbégte ak sant sunu borom ndax ñu lii mooy sunu diine buñ ko amee daf ñuy yokk ci saar yokkuñ ci baatin dafay yokk sunu am-am yokk sunu wér buñ ci nekkee day mel ne dootuñu yëg dara la Sëriñ Tuubaa doon wax naan bu ma joxee sama ndigal damay xaaj sama jëmm ji taalibe bu nekk ma ma dugg ci moom jox ko kattan ak wér gu mu amul loolu la ñuy yëg saa su ne bu nekkee ci liggéeyub sëriñ bi hmm? jaajëf jaajëf Malla Ahmed Fall Touba ma Mahwa waaw di sant bu baax a baax a baax di ñaanal sunu sang bi sëriñ Sall ndigal Cuun mu yàgg fi te wér ndax fi baayam tegoon tànkam rek la teg tànkam am nañ ci yaakaar ni dana ko yóbbu fa mu ko yóbboon ndax sëñ mun Muntaxa mooy xalifa yoonu murit te moo ko ne jox naa la ndigal nga jëfe ko xam nga ne wàcc nga maa ci des sëñ ab sëriñ Saliou mi nga xam moom lañ yaakaar te gëm ko doomam di xalifaam di sëñ Cheikh Mbacke ci la jébbulu moo koy jox ndigal barki démb rek ñoo ngi jóge Fawzey ni ca ca mbaar ma tey ñu dal ci kaw lii kon rafet na njort bu baax ci yoon wi ñu jaar waaw jërëjëf sant nañ leen bu baax a baax tey ñaan seen télé bii jëm ca kaw ca kanam rek ndax Serigne Sall daa mu wax ortees ni ko lépp lu ngeen mën a wane ca màggal gi jëfi sëñ Béthio ji yéeg a féete kaw ndax yàlla sant la wax te sant gi mooy lii toog di joxe kon bu ngeen ko wanee ñëw di ko wane yéen ñu ngi leen di jaajëfal tey ñaan mu yokk barke di di jaajëfal tam ki nga xam ne ni fii ñu taxaw bërëb bii ki tàllal ci nii mooy Serigne Khadim Ngom cardiologue di ñaan Serigne taa dimbali ko ba mu gën koo mën te atte li la war mooy lii togg joxe ndax loolu lañ ñu jàngal jaa ngeen jëf safar